abonné leen ci seen sama client dafa sonn lool jamono bi ñu toll nii mu sàkku nag koo xam ne rekk moom moo koy comprendre ku koy dimbali moom mii di Ousmane Sonko mën nañ ne kiliyaanam bi nga xam ne rek moom mooy ab avocat di maître Ciré door li daal di yëkkati ay kàddoom wane ne kat ki nga xam ne rek moom mooy kiliyaanam bii di Ousmane Sonko dafa sonn ba yegg ca lool ñàkk a gis ko comprendre nag tax na jamono bi ñu toll nii la muy dund metti ba paase metti réanimation ba nga xam ne fa la nekkoon ci ay xibaar nekkat génn na fa gannaaw ba mu xippee wante kat loolee nekkul yoon dontele sax moom mii di maître mi nga xam ne ne moom mii di Ousmane Sonko ba mu fa génnee sax dafa mujj daal di woyal continuer lànk nekkate amul benn yoon benn mbir boo xam ne rek dina nangu ñu daal di ko koy teg rawatina nag loo xam ne moom moo dellu ci wàllu wér gi yaramam ne kenn du ko faj kenn du laal yaramam loolee moom la daal di sàkku est-ce que nag danañ ko ko may lu ci manti am moom mii di Ousmane Sonko xam la ne kat dañoo salfaañe li nga xam ne moom mooy ay àqam dañoo salfaañe li nga xam ne moom mooy ay yelleefam ba Sonko dafa am diggante boo xam ne dafa toll te képp kuy politicien mën nañ ne bis dina ñëw nga toll fa xanaa kay degré yi ñoom ñooy wuute moom mii dafa mel ne bosum dafa gën a élevé maanaam dafa gën a yéeg yeneen degré yi nga xam ne rek mën nañ ne niti politiciens yi dañ fay faral di toll ci ay jamono loole moom moo waral moom mii di maître Ciré Dorly mu xam ne ne kii di Hannibal Djim Cheikh Bara Ndiaye ba si Pape Alé Niang mi nga xam ne bàyyi nañ ko bu yàggul métit bu toll ni bi nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko daal di dund ci biir kaso yi muy grève de la faim bi nga xam ne mën nañu moom mi di Pape Alé Niang ci boppam sax xamle na ne kat bu fekkente ne dañ koy def fii ci Sénégal moom bokk na ci ñi nga xam ne moom moo ci gën a daal di ànd ak lii di ngoram nekkat bu ko sumbee dara du tax mu bàyyi.